asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi yëkkati kàddu bi ci turu président de la république Macky Sall ànd ak délégation boo xam ne lim nañ ko ñu ministre Aminata Mbengue Ndiaye ministre de ak ñaari conseillers président de la république Mamadou Kassé ak Ndiamé Diouf ak yeneen i chef de service président de la république Serigne mi ngi lay nuyu di la ziar di la balwaax bu baax a baax mu xamee ne wi yow yaa koy def. kontaanteen ak mbégte bu mu wax ñu ne bu ñu ñëwee nañu seedee mbooloo defoon nañ ko sax wan leen ne nit koo xam ne loolu nga dëkk def ci réew mi di defal xol yi di tàggat nit ñi di éduquer nit ñi soo wootee waxtaan ci weer wu tedd nii moom ci jëmmi boppam bëggoon na koo fekke ndax xam ne dina doon jamono boo xam ne képp ku fi jógee di nga jàng lu bëri nee na loolu nag daf la ci ndokkale di la sa taalibe la sa jarbaat la sa xarit la sa kóllëre la te lépp loo xam ne mi nga koy sumb mu jëm ci kër diine yi lu baax rek nga ko ciy waxtaane moom moom ko ci biiram kon nag bu ñu ñëwee ci waxtaan wi ñu seedeel ko mbooloo ñu ngi lay nuyu di nuyu muxaddam yi fi toog yépp di nuyu kilifay diine yi fi nekk yépp di nuyu kilifay aada yépp di ci ràññee nag man ki nga xam ne damay wax monsieur le ministre grand sëriñ de Dakar parce que sama mënis na woon di ko nuyu di ko ziar président de la république tey nag dafa bëggoon délégation bi bu ñu ñëwee dañ ko yëkkati ndax loo xam ne dafa am koo xam ne dafa seq moom lu bëri ndax yàlla mooy fal yàlla mooy dégg nit réew wante boo nekkee di wut réew ki nga xam ne da ngay ànd ak moom mu di la jàppale fu sa bët xonqee nga geestu gis ko foo kontaanee geestu gis ko bu wootee ñoo fa war a jiitu kon looloo tax mu ne sama mag sama sëriñ sëriñ Mansour si jàmm bu toogee fii wootee gouvernement bi yëpp war a ko mën a toog te loolu nag ndax tey bu ñu fi toogee lu ci bëri dindi na ko ci kon nag la République mi ngi lay ziar mi ngi lay dokkale ci bis bu tedd bi na la àpp parce que xam na ne ànd ngeen fu metti ci liggéey bi indil nga ko lu ci bëri te tey nag bu yàlla defee ñu dégg ko réew comme xam na fa mu jóge woon te xam ne fii mu nekk te li mu mi xam na ko te xam ne ci mbébétu yóbbu réew mi fu mu baax ki nga nekk mu ne bu ñëwee ñu seddeel ko mbooloo bi yëpp seddeel la ko seddeel ko say ziare la ziare say ziare waa kër si jaajëfal yi yëpp man nag dama ci am toppeel am ci kontaan parce que sama mag di sama kilifa parce que yaa sama mag sama kilifa. yéen a bokk li ngeen di liggéey yéen a nekk fenn muy si donc tey foo ma mosoon a fekk ci li ma El Hadj wax ne bàyyi lu ñu jàddal bi li damay bàyyi ko mu jàdd ko kon nag bu ñu ma yónnee ci yow damay kontaan am cofeel maa ngi lay ndokkal bisu tey bi nag bisu waxtaan la ñun ñëpp dañoo ñëw pour taataan suñuy nopp pour jàng pour déglu ma ci jàng di gërëm di leen sant wasalaam